asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi ku ci nekk turam ak santam ok auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla mu ne suura asaf asaf verset deux muy suura soixante et un verset 2 yàlla mu ne yaa ayyuha allazina amanu lima taquluuna ma la tafaluun mu ne kabura ma mu ne kabura maxtan inda allahi an taqulu ma la tafaluun xam ngeen la lay signifier pour ñi xamul ñu xam moom yéen ñu gën a jàng mais rek yàlla dafa ni

tey le président de la république du Sénégal Yalla le la def le président du Sénégal À qui condition contexte bi ñu la président mu nekk signe bu jóge ci Allah yow nga gëm ni Ousmane Sonko moo la def président il faut être vraiment ingrat jusqu'à la moelle des os pour que nga fàtte ki la fal nga dem bay wax nga ni assemblée bi dinaa wax Ousmane Sonko mu defi déclaration de politique générale nga joxe nga signe nga jël këyit nga signe en tant que président en tant que ñu ne njiitu réew mi lañ lay woowee chef de l'État nga signe nga dem ba ci biir sans rus ñàkk jom mën a fen nga ñëw nga nga ñëw nga dissoudre assemblée bi démb sans gàcce ko amoo looy seet amoo loo ciy rus Diomaye Faye ma waxoon naa leen ko naa leen tant que moy Diomaye mooy Sonko gëmuma ko parce que Sonko dafa nekkoon ci yu bonam Diomaye Faye du ko si jàppale waxoon naa leen ko fi léegi nag xam nga yàlla li mu wax yàlla parce que alxuraan moy suñu git yaa ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la taqulun mais mu ne ensuite c'est une abomination bi mu ne lu tax ngeen wax looy dul def mu ne c'est une abomination auprès d'Allah ngeen wax looy dul def yàlla mu ne abomination maintenant analyser leen aaya bi dafa ne yaa ayyuhal lazina amanu mais est-ce que Aboubacar dina wax lu mu def est-ce que Omar dina wax lu mu def est-ce que Ali dina wax lu mu est-ce que Ousmane dina wax lu mu def est-ce que sax boo xoolee sax ñoom kii euh, ba ci ñoom Abou Soufiane mooy am na benn dignité bu ñu amoon parce que y a une différence yaa ayyuhal lazina amanu ak yaa ayyuhal yaa ayyuhal mu'minin yàlla buy wax yaa ayyuhal mu'minin non du ci teg lu tax ngeen wax loolu du def wala lu tax ngeen ñëw ci champ de bataille bi ngeen daw wala ngeen def non kan lay waxal yàlla groupe bi mooy groupe bu jullit yi mu'min yi ak naafeq yi ci biir groupe bi mooy jullit yi yaay sàll yàlla saa yu waxee yaa ayyuhal lazina amanu mooy kii bu ñu joxoon Xudayfa ibn al-Yamani mooy liste secrète bi ñu ko joxoon liste secrète bi ñu joxoon Xodayf quand je dis secrète abu euh, Omar Pay Xalam ñëw na nekk yaa Xodayf est-ce sama tur daf ci nekk Omar sax xamu ndax turam moo ngi ci wala nekku xam la ma doon tiital Omar radiyallahu anhu mooy naafeq yi xamul ne ñoom ay fek lañu concept loolu moo ko doon tiital te moom dig nañ ko àjjana ba pare muy soucié wu ci groupe bi ndax turam nekku ci pourquoi ñu def ko liste secrète parce que yàlla moo bëggul <laughs> divulguer dinañ diil ak ñoom peut test bi ah, la ah si ban naas an yutraku an yaqulu amanna wa hum ay yuftanun du dëgg peut-être ñoom ci di ci ci test bi la ñu bokk mooy ñu diil ak ñoom mais tey ñoom jomaay li ñu def li ñu def tey jomaay fay li mu def tey hmm, yàlla daf ñu tere ñuy wax nit naa féq la de te duñ ko wax mais def nañu yëf yoo xam ne naa féq yi ñoo koy def mooy nga wax loolu def loolu def ci mbooloo te ba tey joxe woo dara xam nga ba pare nga ñëw euh, di jaay nit ñi doole. tey jii yéen a ngi arrêté ay ñoom commissaire Keita tegu leen ko fenn commissaire Keita c'est un vieux mag la a servi risqué na sa vie pour ce pays là mais amu leen ne leen koy wax loolu waaw dafa doon jaay lii dafa doon def nang mais au moins risqué na sa vie pour moment bi bi seen papa wala seen i yaay wala seen i seen i kii wala yéen ñi sax comme que parce que affaire xale la bi ngeen di nelaw. il a risqué sa vie pour vous hein? Qui que ñu ko Euh, Suzanne Kamara, hein? ay qui est en général candidat. Donc, donc ci dictature bu doy waar lañ nekk di jëm instant ils se sentent confortable quoi parce que là, les sénégalais sont amnésiques parce respectent respecté wuñu sénégalais sont un groupe Parce que Ousmane Sonko le chien je dis bien Ousmane Sonko le chien et je l'assume mosuma gis ku bon Ousmane Sonko wallahi azim

Sénégal gis nga am na yoo xam ni buñ ci jógul fitna bi bu ñëwee ci ñun ñëpp lay dal ñun ñëpp lay dal moment bi man dama mere woon ay ba tey dama ko mere Macky Sall li mu jël affaire bi jox ko gars yi man mosuma ànd ak Macky Sall ok ba ci élection yi laa ne mais jox leen Macky Sall mu géré parce que moment boobu lan la y avait xamul kan mooy kan affaire bi jaxasoo na ñu topp histoire Sweet Beauté kii nangam nangam ba am ay kan mais mën na am seen biir am na ñu baax mais xamuñu kon kan xamuñu kan moo baax kan moo bon nous avions besoin de temps pour identifier gars yi parce que jaxasoo woon na trop tumb Moussa Mody ok mais mais lii ñëw moo gën a bon Macky Sall continuer moo gën lii man li ma ci xam mu continuer wallahi moo gën lii mais Macky Sall tamit jël affaire yi jox ko gars yi mais moment bi Macky Sall opportunité moins mu parce que xamuñu batay li xew ci protocole bi mu xawa ki il faut ñom mom Amadou ah, ou ou Bougane Idrissa Karim Wade en tout cas au moins ni def ay dégâts bu ok mais guñu le seul ce pays qui est en danger le Sénégal est en danger ça c'est pour question de sécurité nationale m'a posé nous pour que gars yi majorité ci assemblée wallah ce sera la fin bu majorité ci assemblée bi Sénégal président bo xamni yow xam nga xamul lan signature li moy danger li leen wax euh, gérer fonction ah, bu bu bu am simple employé nga woon ah, nga ñëw jox ko kii xamul luy njëriñu signature xamul signature mais poids bi poids bu signature mooy lan xamu ko parce que boo ñëwee en nga signé benn mbir nga signé ko suba nga ñëw nga wax waxee nga gën a parjure mais par exemple tu es un con Bassirou Diomaye Faye tu es un con et t'as toujours un con un larbin t'as toujours été un con t'as toujours été un larbin te tu mourras larbin boo changé wul ñàkk nga fay na trop te yow li la yàlla defal nii xooloo ko nga topp mbaamu xaram bii di Ousmane ko nga topp ko mu lay kii au doigt et à ah? nga koy obéir au doigt et à l'œil tey jii xoolal tey ñàkk fayda bi nga def xool yu ñàkk fayda yi nga def Sonko moo la ko jaral ah Ibrahima Diawara nañu waxante dëgg bi muy def Suède bëre tàggu na la bi muy def yu bonam tàggu na la hmm? yéen ngeen ni da ngeen ni yéen yéen a fi waxoon anyway du yéen a fi waxoon daawa daawa daawa ngeen fi waxoon daawa waxi daawa ngeen fi commence fekk ngeen wax waxi daawa tey ngay ñëw di def li yàlla gën a bañ sura asaf yàlla mu ne c'est une abomination auprès d'Allah ngeen wax looy dul def yàlla wax loolu di ngeen defa oon daawa da ngeen di génne ñi yéen affaire naa fekk ngeen def gën a bon waa Quraysh sa boole sutul Baqara yàlla dafa ne safara mooy mooy mooy kufaar yi ah mais xoolal naafiq yi yàlla dafa ne safara bi gën a bon lañ jëm te loolu ngeen def ngeen di wax ñi ñuy waxee daawa seytaane ba dee yéen nguur ngeen bëggoon nekk di jaxase këru diine yi ngeen dem jaxase jaxase Sénégal ay lépp ngir nguur mais tey jii nag je lance un appel à toute l'opposition même Macky Sall la même Macky Sall c'est une opportunité pour mu rectifier quoi parce que am na ñu naan way euh, am na lu ma xamoon pression yi fii nanga mais ñun li ñu xam li ci kaw mooy li mu jël nguur gi jox ko ñii war na leen bàyyi prison dafa jaay Sénégal ci loolu maintenant mën na jëndaat Sénégal mooy lan na ñëw rejoindre opposition bi instant bi tous les les égos là il faut ñu taire les égos nga problème yi am na diggante loolu yëpp gars yi teg leen ko fële quoi ci urgence la ñu question de sécurité nationale moo posé wu question de sécurité nationale moo posé wu gars yi amul qui kii bugaan la andal, kii loolu yëpp amatul lan moo fi am mooy ñun ñëpp ay Sénégal ñu bëgg a sauver la république il est question de sauver cette république imposer les c'est qui, nous seen encore euh, euh, leader politique imposez imposer vous allez leur imposer Nous ànd par la force par la force nous allons prendre war Côté Andoul, tu es un traître nous allons te combattre nous allons te lyncher Nous allons te faire des choses, bi ba parce que nous, avons la majorité bi est danger bi majorité bi assemblée bi wallahi xaw ma ndax li ngeen di li ñuy gis ngeen di gis Ousmane Sonko ce chien je dis bien xam nga man damay wër ay mots yoo xam ne moo gën a grave chien quoi mais mënu ma ko am parce que sama xol day exprimer ci biir li nekk fii mënu ma ko exprimer mais moo gën a grave chien waa ji moo gën a bon un chien wallahi al azim wallahi dama ko waat fii laa jël kaamil ma waatal leen ma leen wallahi fenkat la man dinaa waat ci billahi wallahi tallahi ah jël kaamil teg sama loxo ci ay fen xanaa ñemewuma yàlla quand même ah. mais dama leen ko waatal bi les gens s'en foutent am na ñeneen ñu leen ko wax aussi les gens s'en foutent xanaa léegi leer na bu ba au niveau du continent panafricaniste camerounais yi euh, euh, burkinabé ñëpp ne le président du Sénégal le premier ministre fenkat la Tay malien, yi ñëpp a ngi naan tey lan fenkat nit ñi di remonter léegi ba ci ñoom Samori Touré ñun ñoo trahir Samori Touré ñun ñoo trahir diw ak diw ak diw fa la ñu toll ñu yàq deru Sénégal yi ndax un mbaam de Ousmane Sonko un un chien d'Ousmane Sonko kii baayam moomul réew mi baayam baadoola bi baayam moomul réew mi te gars yi dama leen wax benn affaire ah, ngeen bàyyi ci xel Adji Sarr ni mu waxee ni ko Ousmane Sonko doon doon amee ay rapport sexuel ak moom bàyyi leen xel ci loolu woo leen les les sexologues les psychanalystes les les whatever ñëpp ñi mën a ñiy liggéey autour de de des histoires de en tout cas cerveau humain bi nu muy fonctionner ñëpp ñi am ñi am xam am ci ci bop nit nan lay fonctionner ak lan mo meun déséquilibre par exemple nit de le déséquilibre là ah au niveau du milieu intérieur le meun lépp nit ñi que ça soit du déséquilibre sexuel ñëpp expert yoy fexe leen ñoo ñu wax leen ñu wax leen xam Diallo dafa ni ki mu jàkkaarloo c'est un psychopathe nee na un déséquilibré la jàkkaarloo

kii taal réew wallahi gis ngeen yi Macky Sall doon bàyyi bés bu sénégalais sonné révolté wu ki il va tirer sur le peuple ñom folbert filbert la ñi dee fii ñoom ñëpp mo leen ray ñëpp loxo a ngi ci mom ak Atepa gis nga Atepa mom ak ñom ñaar bu yeboo ngeen bay xel bu baax ñi faale wuñu Sénégal faale wuñu dara sen bop mais dañoo nekk ci agenda yu maléfique yéen ngeen def ne accident yi di am yëpp nekk fi di ki ay ci nag la la réfugié woon bi mu dawee dem Casamance seen ñoo ko du maire Bois Sacré

moom mooy nekk général bi bu dëkk bu gérer planète terre quoi mom moy jiite mom la ñuy jox intelligence yalla mu ne mu woo malaaka yëpp hmm, su jootal Adam parce que avant lolu ci yeen sen prétention yéen gëna a xam adam wax leen ma tur yi àllama adam asma kulla wax leen xamuñu adam wax le Adam wax ko ñëpp su jot mu ne à l'exception d'Iblis mu révolté wu ñëpp xam histoire bi mu baña a su jot la la jinne la jinne la suura euh, euh, kaaf yàlla wane après la wax ne jinne la jinne boobu tey mu ne du sujjóot ah ñun ñooy vicaire bi ñun doomu aadama ñooy vicaire bi tey en deux mille vingt quatre ah ñun ñuy sujjootal jinne wu bois sacré ñun ñuy senegal ñu nekk di sujjootal jinne yu bon yi ñun ñooy nekk ci ay ñoom Selbé Ndom ñun ñooy nekk ci Ousmane Sonko bi muy dem seeti kii gis ngeen bopp bi mbaxane bi mu solom ngay gis ndomb yi ci biir bopp bi ah ñun ñooy yu bon yëpp ñu ñoo ñu ñoo nekk di may seyaati ni doole defa accident yi la moo ko indi ah wax na ne jinne yi dañu ñu dem ñu dem dëkk ci ndox Dakar Dakar ak Sénégal Sénégal fan la nekk ah mais ana li lan moo tax hurricane yi di am Florida fii yëpp fan lay formé woo mais réfléchir la hurricane yi di am ouragan yi di am Amérique di décimer Amérique fooy farloo chaque fois neen la Sénégal Sénégal bi man suis spécialiste ah. mais c'est juste ay fait qui mais dafa flagrant na borom xam-xam mi def ci recherche est-ce que a un rapport mémoire esclave yoy est-ce que amna un rapport Les affaire chayatine mo ngi ci bir. ah affaire chayatine mo ngi ci de tay accident yi du jeex chayatine lañu gëna bëgg du droit. du dañu gëna bëgg a partout ci Sénégal chaque jour deret a mom bi mu ñëwé dérèt lu muy wax yëpp waxi dérèt la attaqué dérèt dérèt dérèt bi mu jëlé nguur gi lan la parce que ñom shayatini da ngay signé ak ñom contrat bo signé ak ñom contrat c'est fini waji shaytan la dajalun bu bon bon bon man ma lañ ko wax dajalun bu bon la ki tank jëgé wul ci réew mi wallahi ci musiba lañ jëm ci musiba bu bon la Sénégal jëm mo tax instant bi dam leen di ñaan ñi nga xam ne au moins bëgg nañu réew mi avant bëgg réew mi ñi nga xam ragal nañu yàlla bëgg réew mi bëgg xeex malaaka yi bi mi leen waxee damay créer yàlla mooy damay créer benn vicaire lan lañ njëkk a wax dañoo ne yaa allah dangay créer ko xam ne dafay semer le désordre sur terre dafay tuur deret kan mo fi semer le désordre tay biir Sénégal kan nga ko xam ne bi mu ñëwee ba tey yàlla waxul dana génne wax kaddu yi ni mu gën a ah wax ko ci alquran mu ne bu len wax na kaddu yu rafi di genn sen gémmiñ ñom bi ñëwee ba tey kan mo fi dakh saaga affaire saga kan la fi ñew di saga ay mak ay pa ay ñi mag sen baye du ci mom direct bi bari bi ni du ci mom nga def na azar la ah est-ce que azar la waji dajal nun la ay shayatin yu bon la an jinne yu bon la Ousmane Sonko andal man ma len wax loolu jinne yu bon a bon a bon tant ngi fi musiba yi du jeex waxam yépp ay waxi la moy tal rew mi la la moy tax jinne yi gëna contane kontaan shayatin yi gën a kontaan rek lay def fen fen xolé ni mëne fen lan mo koy forcer pour muy fen lan mo koy forcer pour muy dem ay milliers de débauche han lan la wax ci bir bopam lan mo tax muy fen tout temps fen fen fen kan fen yàlla moy contane ci fen wala iblis bani ni aadama fen kan mo ciy contane yàlla wala iblis donc mom iblis la nekkal mom ci service iblis lay dox loolu mooy dëgg léegi nag dama lay lancer un appel d'abord yéen les leaders euh, euh, de ces différents des différents partis politiques yi nekk ci la l'arène politique sénégalaise les leaders ah à commencer par ñëpp laa wax de ñëpp laa yéen ñëpp A ba Z bi c'est la patrie moo woote fii ñu bëri dañoo dee pour réew mi seen deret dafa tuuru pour réew mi Mamadou Dia dafa souffrir pour ce ce pays Cheikh Ahmadou Bamba dañ exilé douze ans d'exil trente-deux ans plutôt euh, euh, euh, de résidence surveillée ñoom Mamadou Maodo Malick ñoom ñëpp dañoo sacrifié pour ce pays ñaata militaire ñoo dee armée bi sénégalaise ñaata militaire ñaata policier pour défendre drapeau bi suñu drapeau bi tey ah hein? Mamadou Malik, Malick bi mu yónni mu dem kii c'était pour lan c'était pas pour défendre le Sénégal pour défendre pour défendre Sénégal tubaab yi loolu tax muy xeexal tubaab

Ben non bo xamni nonu noonu république bi bu tuddu Ousmane Sonko njabotam njabotam mo ngi commencé taawam mo ngi tuddu Diomaye fay duma sax wax président parce que du président yàgg na ko du sama président ok donc de ñooñu tay lañu wara jakar lol donc ngir yalla les politiciens yeen ñep lay lim yeen ñep A ba Z dam leen di lim quoi Idrissa sek, Karim Wade Thierno Alsan Sal Amadou Ba ok Bougane Gaydani. bokum, Abdul Mbaye Macky Sall ok mais juste pour damay pour ni ma ni may lim ni ma le danger à quel point il est imminent il est là le danger ngir pour une fois pour une fois pour sauver Sénégal pour une fois nous avons une majorité qui assemblée cohabitation mais par la force la waranek. pour une fois nous, un peuple nous ñoom dara sans vous parce que Sénégal tamit culture faut gëm leader politique L'homme la culture sénégalais Sénégal tout le temps day leader mais bro lol dama nan yeen ñep du ma sax wax dama nan peuple bi nañ gérer suñu bop ok peuple bi ñun la wara a commencé ñi nga xam ci ñi papa que nañ ni 24 la batay nak nag am mercenaires yu tax ak ay dof yu baña a ay dof yu bari bari mais l'essentiel nous nañu tek feulé lepp lo xamni da ñi pour une fois ñu autour de ce drapeau là vert jaune rouge ak étoile bi un peuple un but une fois bobu nañu and ci lolu un peuple parce que li Cheikh Béthio daan wax dañ ñoo rax ñi ñu ci ñun donc imposer leen imposer leen ces dirigeants là mais ñu and par la force dañu wara and pour une fois ñun nak suñu côté ñun diaspora bi ñun ñong ci liguey comme que yu bari si diaspora bi lay jógee hein ñun laaj ñu benn poste jéemu ñu nekk dara

des gens là des Ousmane Tunkara non d'autres amati. vous fan da ngay ñëw nga toog dor ay cocktail molotov qui, après nga génn ci naajement C'est ce qu'ils ont hein ils ont mis la vie de citoyens américains de US citizens de mettre leur vie en danger parce que Sénégal il y a des US citizens ok nga nekk fii Amérique Mola Morgan même chose ñoom ñëpp. nañ leen woon xeex nan la ñuy xeexee parce que ñun ñoo leen jàngal xeex surtout yenn rappeurs yi ñun ñoo jàngal xeex nañ leen woon nag nan la ñuy xeexee nga defee ni paa bu toll ni man bu ma taxawee génne sama paaka taxaw ah jàkkaarloog ñoom ah génne paaka tax pare nga def mag bu toll ni man mënoon na taxaw woo police parce que am na lu ma leen bëggoon woon te loolu fa lay gën a taxar naa seen nag loo leen ci bañ bañuñu ko te dañoo bëgg ñëpp ñu adopté la am xool mënatuñu toog ñu jàpp commissaire Keita par exemple ñun ñu toog rek naan waa free commissaire Keita warul demee noonu il faut ñu jëngal town bi il faut Sénégal mu yëngu il faut ñom li ñuy def ñu wan leen ni ñun ay de salon ñun dañoo nous nous ci ay de salon il faut xex bi dafa jot est au combat l'heure n'est plus au discours kilométrique ñu ak ñu bah après mu la vie ñu di mais pourquoi

élection yi gagné yi passé ñu gagné ko ban pourcentage la ci ñom ñaata sénégalais 19 millions de sénégalais ñaata ñoo voté liste électorale bi ñaata ñoo ci nek hein ah? ñaata ñoo nek liste électorale bi par rapport à 19 millions de sénégalais même bu nekkee am na ay xale yu ndaw ñu génne leen ci ñu nek à l'âge de voter mais bu ñu génne loolu ay environ 4000 mille et quelques ñoo voté génne leen ci 32% yi yi yi am yi Amadou Ba am ngeen gënné ci traître yi nga xamni dañoo jaar ci souf hein ah? ñom ñu dem voté ko

dogaleel leen tous ils ne représentent absolument rien ils sont là à faire que du bruit il faut nous won leen filles au Sénégal nous lui ñu xeex seen bàyyi Nous, ko ñoom xeexuñu ko. li ci Ousmane ko ko pour ce pays là bayam sa Ousmane def ko sénégalais loolu a fi sa baye def yow def encore pire ba par ñu baye ak discours bi discours mais est au combat. L'heure est au combat. Mënatuñ fi toog di se gars yi il faut l'heure est à la radicalisation de ce combat. Mënatuñ fi toog di def ay guerre de salon toog ci ginnaaw suñuy copine képp ku fi bëgg a falu na nga takk sa tànk tubéy l'heure est au combat l'heure est à la guerre nous sommes en guerre contre ces forces du mal loolu mooy dëgg mais toog fii ci internet bi j'aime j'aime j'aime bus aimé aimé aimé rek après ñuy dem ñuy ñuy surfer sur l'événementiel quoi buñu paré ñu japp euh, général Kandé ñu exilé ko ñu nek fa ñu casse casse bo paas ñu japp euh, euh, ba Diakhaté ñu taxaw ñu faté général Kandé ñu topp Bah Diakhaté japp nañu ba Diakhaté ñu paré bobu ah, affaire Mélenchon bi jaar na fi ñu top ci après faté yele ñu paré mais ñu ñuy sëfeloo ci l'événement ci du n'importe quoi hein ah, tay ji affaire bi dañ ciy wax mais ñu focaliser sur l'essentiel l'essentiel moy ñi il faut ñu dégager mënatuñu toog di xaar parce que gaayam bi ci musiba la jëmale réew mi il faut ñu dégage gi ngeen fitna yi ñu tey ñoo ko tey Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne ñemee na wax loo loo xam ne Ousmane Sonko Diomaye Faye ànduñu ci Cheikh Omar Diagne ñemee na taxaw wax lu Cheikh Omar Diagne ak Cheikh kii àndul sen système du système bu seytaane ni ñuy defee ñoom du Iblis mooy defee noonu Iblis mooy defee mais nañu radicaliser affaire bi jeex na maslaa amatul ñii dañu dégager peuple bi majorité bi boo yaa ngi dee ci gaal yi boo yaa ngi dee nañu bàyyi affaire tapé yi ñuy def nañu bay affaire ragal yi ñuy def ok fii ñi ñun gënuñu ñi fi jaar ñi fi jaar démb gënuñu leen quoi ñoom Blondin Diop gënuñu leen donc l'heure est au combat gars yi ñii buñ leen may dara buñ leen may dara te nañu bàyyi xuloo yi ay les égos la nañu bàyyi loolu surtout les leaders politiques bàyyi leen seen kii l'heure est au combat et l'heure est lu l'union loolu laa am lu may wax unissons-nous autour de ce drapeau bi nga xam mais ñun ñëpp pas ko sauf nous bien sûr unissons-nous autour de ce drapeau et autour de la république mais nek fi, tout le temps nous avons fi di wax rek wax rek la def ñoom ñuy gën am fit di gën confortable ba kañ legi léegi affaire jëmaa footing commissaire Keita tey ah commissaire Keita gay, yi pare pour xeex nga ñëw ñu xeex ku bëggul xeex mais nga may ñu quoi mais bu fekkee ñëw di ñu rey ay wax ci ay Facebook ay guerre de salon combat de non non kuy xeex na ñëw ñu xeex ñun moom dañoo pare te dañoo xeex te Ousmane Sonko dañ la woon nan la ñuy xeexee wallahi di nga xam ne depuis 1900 année blanche 88 bi ñoo ngi fi lu ne gis nañ ko wallahi nañ la ko won dama ni wallahi laa nañ la woon nan la ñuy xeexee wasalaam nuyu naa leen ñëpp